Euh, waruñu juum waruñu juum et si on veut une nation un pays qui se développe un pays foo xam ne jàmm da ci am dafay am solo trop may mun a revenir donc en état de droit au respect de notre constitution respect des textes et aussi demander au chef de l'État nga may moom ma wax ak moom oh, waaw le président euh, euh, Macky Sall Macky Sall hmm, votre ancien camarade de parti mon suma grand frère président la République moom mooy suma président Euh, président de la république yàlla may na la ba pare te nit ku nekk li ngay ñaan mooy mujj gu rafet te actuellement wax nga sénégalais yi dootoo candidat alhamdulilah mu des 6 mois 7 mois président dama jege woon président Ablaye Wade xam naa comment kilifa naka lañ koy dugalee ci guuta ak piège parce que tey jii ñi la wër ñëpp très souvent ils mettent en avant seen propre intéret sans vous le dire yaa ma ko gën xam kon li may ñaan mooy sa sens du dépassement ce sens du dépassement président de la république tey jii il a les moyens comme Mandela ni mu ko defee woon y avait des crimes y avait des choses euh, euh, odieuses yoo xam ne mi ngi woon Afrique du Sud mais mu placé wu li may niveau bi may waxee hikma sagesse bi muy réconcilier donc son peuple et aujourd'hui celui-là qui a les moyens qui a la puissance c'est le président Macky Sall il est le seul à pouvoir faire ce travail-là oo ñi mu war a wax ak ñi mu war a wax pas simplement ci cadre gi ñu teg na le cadre dialogue bële mais un vrai cadre boo xam ne peut-être même plus discret pour régler les problèmes d'un pays un pays c'est sérieux une nation c'est gros c'est demain c'est le futur c'est le passé on ne peut pas accepter Maïmouna doo ko nangu kenn du ko nangu on est en train d'émietter cette nation on est en train de fragiliser cette nation et la chose est tellement sérieuse elle dépasse le cadre des partis elle dépasse le cadre d'une coalition c'est une affaire d'une nation sénégalaise il faut que qu'on soit plus généreux il faut qu'on soit plus sincère et et ku nekk joxe dara et kii gën a am nag moom mooy le président de la République et il n'a que six mois pour réconcilier cette nation-là. Vous pensez que cette nation elle peut être elle peut être en en en je vous assure je vous assure en 24 heures Ah. Quand le président Wade et, et, et faire pour pour pour quand, quand Diouf a décroché son téléphone ak li ñu ko bañoon yëpp ak li ñu ko doon xeex yëpp li ñu ko bëggoon humilier yëpp quand il a pris son téléphone pour féliciter le président Wade gaawantu def ko parce qu'il y avait d'autres ay faucons yu bëggoon indi problème dafa régler problème au Sénégal ñëpp gis tey jii Diouf ormal ko Ablaye Wade je me souviens c'est là-dedans am ñu buggoon mu bañ a reconnaître même les résultats mu gaawantu oo son jeune frère ou son fils Macky Sall mu nekk loo xam ni ñu rafetlu ko je me souviens encore en conseil des ministres le dernier conseil des ministres le président Abdoulaye Wade ne dama bëgg ngeen jàppale ko dama bëgg ngeen jàppale ko et pourtant su dee am na kenn koo xam ne waroon na vivre ay frustration waroon na am li ko naqari moo doon Abdoulaye Wade mais dafa jël benn hauteur boo xam ni ça a permis au Sénégal de vivre ce qu'il est en train de vivre maintenant c'est compliqué c'est difficile il y a beaucoup d'intérêts en jeu beaucoup de contradictions c'est complexe. c'est très complexe mais Macky Sall lan la lan lan ngay xaar ci moom. li may xaar li may xaar pour li may xaar ci moom li may xaar ci moom mooy simplement Macky Sall moom ci boppam. parce qu'il a réussi quelque chose de formidable il s'est sorti lui-même du piège de la troisième candidature ça c'est déjà extraordinaire il a il a réussi cet exercice. là donc il est bu mu nangu nekk sous la pression d'un parti ou d'une coalition xëy na nag. li tax mais lan la war a def. li mu war a def simplement mooy euh, fay parce qu'il a des instruments juridiques légaux. Mm. par exemple cette inclusion là bi ñu doon wax boobu ba léegi su ko defoon fay na ay mais inclusion bi demul dans le sens de l'inclusion c'est un traitement euh, personnalisé de deux personnes et. mais mais, mais vous êtes d'accord sur ce traitement réservé à ces non je suis pas d'accord je, je suis pas d'accord je félicite euh, le frère Khalifa je suis content pour lui je suis content pour le frère euh, Karim je suis content pour eux okay. hein, pour euh, leur réhabilitation mm -hmm. mais je suis frustré pour l'utilisation et l'instrumentalisation de ma loi pour traiter des cas person personnels personnalisés particuliers alors que ce qu'on veut mooy ñu stabiliser notre Afrique et notre pays mooy ngay jël des des lois impersonnelles de portée générale quand on parle d'inclusion on ne parle pas de Ousmane Sonko c'est une erreur on ne parle pas de Karim on parle simplement d'un problème boo xam ne extrêmement important mooy décision de justice su ñu ko jëlee fële juge bi am sañ-sañ teg la daan tegu la daan bu la ko kat code électoral teg. mooy déchéance électorale déchéance électorale on trouve que c'est injuste et en Europe. en France qui nous inspire beaucoup aussi malheureusement ñoom ñëpp bindi nañ ko parce que dañu ne kii di daan kii war a daan c'est simplement la justice kon loolu su doon rocci nañ ko ci suñ code électoral réglé nañu problème inclusion bi tuddul du tuddul Karim tuddul Khalifa